leen ko ci ay affiche ci ay annonce euh, tey sunu gan moom mooy Bougane Gueye Dany nekk njiital mouvement gëm sa bopp nekk tamit eh, njiital groupe bi di D-Media di yëngu si wàllum média ak yeneen yu ni mel waxtaan bi tey jii waxtaan bu spécial la ma si ànd ak eh, samay mag eh, si métier bi ki si jiitu ma koy nuyu di ko dalal bu baax a baax si jotaay bi tey di sama mag Mouhamed Mouhamadou Ndoye Bane wala boog Mouhamadou Moud Bane maa ngi tub di la nuyu bu baax a baax di la dalal fii Sénégal. waaw Diallo maa ngi lay ziar di la di la remercier ci invitation bi. di également nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi suivre Seneweb ak ak FM di nuyu Ahmed Aydara euh, di mujjee président Bougane di ko di ko di ko jaajëfal. Ahmed Aydara moom du ko juum si trop maa lay nuyu di la waaw Diallo lay nuyu di la fay di nuyu tamit. Euh, internet yëpp ak ñi nga xam ne ñoo saxoo déglu nag groupe des médias ak euh, ki nga xam ne mooy Mout Ban borom Dakar Times nuyu tamit président Bougane Gueye Dany waaw euh, Bougane moom la ñuy dalal wax nga ko président Bougane Gueye Dany nekk leader mouvement gëm sa bopp nekk tam PDG groupe de médias am nañ mbégte dalal la bu baax a baax tey ci Seneweb ñu bàyyi la gën yow ñu ñuy déglu ci Zik FM ak ñi ñuy seetaan ci Seneweb. maa ngi lay sant bu baax Diallo euh, di sant Moutbane euh, ak Ahmed Aydara nga xam ne fekk naa leen ci plateau bi di sant internet yu. Seneweb yëpp mais aussi di gërëm ñi nga xam ne ñu ngi topp euh, réseau Zik FM Euh, jërëjëf euh, président xam naa ne moom euh, waxtaan bi si ñetti pàcc la nga koy amale bi si njëkk moom mooy wàllum politique ak tolluwaay bi ak lépp loo xam te ni tamit ajoo na si bi si topp moom mooy mbirum koom ak économique bi nga xam nii président Macky Sall sabab na ko si benn nal boo xam te nii muy PAP 2 bi da nga koy compressé mu war a nekk si ñetti at loolu dinañ si waxtaan waaye tam dinañ waxtaan si tolluwaay des médias jooni jooni ak yeneen yu nu xeetoo donc laaj bu njëkk bi si wàllum politique laata may jox kàddu Mouhamed Moudbane ak euh, Ahmed Aïdara moom mooy gis nañ ni euh, bi ñu jënee si présidentielle bi gisoon ne da nga nekkoon ci benn tekka tekk tekkaaral ban fi waame bi duggee nga soogaa jënn di wax tekk tekkaaral boobule ndax mun nañ xam lan moo ko sababoon ndax Bougane Gueye Dany dafa bokkoon si opposant yi nga xam te ni ñoom euh, jamono jooju danoo nekkoon si leneen lu wuteeg taxawaay opposant alors maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci question bi sénégalais yu bëgg yu bari dañuy posé wu question bu mel noonu mais ne Euh, dañuy lancé wu ci ay interprétation euh, Diallo man suma xëyee damay jël sumay may bagage damay dem liggéey parce que man dama am liggéey moi je suis un dama yor ay kër yor ay société yor ay nit yoo xam ne bu weer deewee dama leen di fay au-delà nit ñooñu diggante juróomi téeméer jàpp juróom benn téeméer seeni njaboot seen ëllëg ak seen dundin yàlla jaare la ko ci sama loxo donc moi je suis pas un politicien professionnel boo xam ne bu yeewoo suba ba ngoon jot mun naa nekk ci politique donc à un moment jóg na parce que gis naa ne réew mi ni ñu ko doxale du nii jàpp naa ne nañu ko doon doxale du noonu jamonoy élection présidentielle ñëw na ma sol sama dàll def presque mille localités deux mille neuf cent et quelques def cent vingt mille kilomètres au Sénégal wax leen li ma xalaat ne leen yorin bii baaxul jëf ji baaxul bi ñu yeggee ba ci cëppaandaw la je me suis rendu que sénégalais yooyu dañu am ba dañu bàyyi xel ki fi nekkoon cest à ñun li leen doon proposé bëgguñu ko continuité liñ bëgg boo fàttalikoo ba ñu génnee ci élection yi dama ne leen gore leen gore leen rek te bu leen yuuxu parce que vous avez choisi la continuité. La démocratie, c'est également ça. C'est d'accepter. Parfois, quand on, a, quand on perd, on accepte qu'on a perdu. La démocratie, c'est d'accepter le choix des autres. Il y a 58% des Sénégalais qui ont accepté d'être avec nga xam ne nous ak que à un moment, li jot wala li jaadu mooy ñi nga xam ne ay politiciens professionnels lañu mën nañu continuer di wax mais ñun ñi nga xam ne bu ñu liggéeyul duñu lekk suñu njaboot du lekk ñi yaakaar ci ñun duñu lekk on est obligé delluwaat ci waar wi dem liggéeyi. Euh, bu fekkee ne loolu mooy circo politicien circonstanciel mooy ki nga xam ne mooy liggéey di jox ñoom politicien professionnel yi pour ñu lekk kon seen sang la. Mout Ba. tey euh, Bougane euh, tey le président Macky def vingt mois. bi biñ ko falaatee ba léegi te jii fekkoon na nga def évaluation euh, vingt mois yooyu sur le plan social ak sur le plan économique lan la ñu mën a retenir. vingt mois effectivement wax nga ko dafay rejoindre question bi Mamadou posé léegi lu tax boobaak léegi kenn déggu la c'est presque deux ans bi nga xamee ne fal nañu ko à un moment li ma gëm mooy il faut laisser dérouler li mu dérouler. cin su naree neex su baxee xeeñ la ma doon wax ba ñuy campagne ci deux mille dix neuf ma ne leen lu nit mënte def ci juróom-ñaari at bu la ko diggee ci at boo ko gëmee da ngay nax sa boppa rek malheureusement dañu nekk nag ci société boo xam ne ñit ñi ñoo bëgg ku leen di nax ñit ñi ñoo bëgg euh, ñun ñu nekk ci mbiru politique parce que dem nañu ba jël politique def ko muy wàllu nga baal ma fen ñàkk wax dëgg sàcc ñàkk kersa et cetera et cetera mais li Macky Sall liggéey doo ko yemale ci benn at <laughs> mooy euh, duñ ko falaateeg léegi ak lu topp déedéet da ngay dellu ca ba mu commencé ak léegi muy presque vingt cinq mille milliards yoo xam ne jaar na ci loxoom nee naa la golo golo sax boo ko joxoon vingt cinq mille milliards mu dugg mu dugg record Guinness parce que dana ci def lu nit mësul def mais yëgg nañu tey ci loo xam ne réew mi. jarul kenn ngay wax tolluwaayu réew mi Covid gi ñu génn on a deux millions de nouveaux chômeurs euh, de nouveaux nouveaux pauvres cent quarante six mille personnes qui ont perdu leurs emplois certainement on va y revenir avec l'histoire de l'immigration clandestine suñu maam yi dañ daan ñëw di leen jël di leen yóbbu ñuy xataraayu di bañ tey suñu rakk yi ñooy gàddu seen i bagages ak seen alal di xataraayu pour dem et je crois que loolu rek dafa day dafa doy ci baromètre pour ñu xam situation bi réew mi nekk jafe-jafe yi askan wi di jànkonteel sama waxi démb mooy suma waxi tey. mais mais tey jii bu ñu xoolee bi élection présidentielle yi jotee da nga àndoon ak Idrissa est-ce que depuis loolu yow ak Idrissa Seck ngeen ngeen def évaluation seen compagnonnage tey coalition boobu seen lëkkaloo boobu fan la toll. mais euh, évaluation ak euh, ci compagnonnage boobu mënta weesu lu dul jël deuxième et je que la ma ca waroon dox man. dox naa ko ca la ma ca waroon def def naa ko ca y a beaucoup de localités yoo xam ne gëm sa bopp ak ñu àndaloon def nañ fa ay résultats yoo xam ne jàpp naa ne ay résultats yu extraordinaire la ba ñoom ci seen bopp moom sa Seck bi yëf ci jeexee jël na téléphone am woo ma félicité ma parce que lekkaluma ko essence dawalul ma ko otoom la ma ca def sama xol ak suma yéene laa jóg defe ko parce que tout simplement bokk naa ci ni jàppoon ne ñii fi nekk moom moo leen tane junni donc euh, à ce niveau euh, bilan bi mooy bilan deuxième bi mu jël ci ay élections mu wóor ma ne biir ma ne bokk naa ci ñi nga xam ne participer nañu ci loolu. est-ce que yaa ngi am gëm-gëm boobu ba léegi nii est-ce que gëm-gëm boobu toxuwul. ah non le fait nga ni Idrissa. non euh, fi mu nekk nii deux mille deux mille maa fi gën. non egguñu foofu. non non je dis. Ah. compagnonnage la ñu amoon ak Idrissa Seck jeex na. c'était pour la présidentielle de 2019 fi ñu jëm léegi mooy 2024 balaa 2024 am na yeneen i jongante bu ci nekk nag buñ ca yeggee la mu laaj ci taxawaay ñu doxale ko noonu incha allah. jongante yooyu dinañ ci ñëw président Bougane nag euh, chef d'entreprise nga wax nga ko euh, mbas mi moom chiffre d'affaires yi euh, nan nga ko dundee yow. alors maa ngi lay gërëm. mooy question bi ma tàmbalee ak Diallo man su ma xëyee damay wuti nu ma daane suma doole su ma xëyee maa ngi seet nu ma mën a mën a def mhm. ba kër yi ma jiite mu toll ci juróom benn naka lañuy mun a def ba kenn ku ci nekk ca ña fay liggéeyee mënal boppam waaye mun a demal boppam mbas mi nag situation la boo xam ne ñëw na mhm. ak son lot de désagrément loo xam ne kenn prévoir ko woon yaakaar naa ne Euh, soxlawul ngay wax nit ne ko mbas mi metti na ci un patron d'entreprise mais jàppal ne metti na ci ñëpp parce que kii taaba taaba sax mbas mi bàyyiwu ko rawatina nag ñun les chefs d'entreprise xam nga Macky Sall bi mu demee ba mbas mi metti dafa dem wuti mille milliards ñëw pàcc pàccal ko ne la pour lii ak lii ak lii ak lii la mille milliards yooyu la mu ca dajale toll na ci sept cent milliards à peu près qu'ils ont dépensé mais est-ce que dañ ñu ci xalaat benn yoon ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci privé bi rawatina ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci secteur communication média et cetera et cetera dinaa ci ñëw mais je veux dire de manière concrète bi yëf yi ne këtt ne jon diggante mars ak mois bi ñu nekk muy octobre vous waa Seneweb demandé leen seen patron diggante boobu nu mu def pour fay leen ñun ñi nekk ci privé bi da nga góor góorlu pour mun a fayal sa bopp say salaire parce que moment boobu benn banque nanguwul lebal kenn. peut-être sa yeneen entreprise mais nee ñu média ñëpp dañ doon yóbbu di di joxe seen ndimbal seen participation mais média par contre état moo leen jàppale. man de dama bokk ci ñiy jàppale état parce que bi mbënd mi tàmbalee jël naa li ma yor ku si néew jox leen. waaye jël support yi ma suñu borom dénk ci wàllu communication jébbal leen bu ma doon continuer ci fil conducteur bi ma doon li ma doon wax mooy ne bi nga xamee ni mbas mi yegsi na les chefs d'entreprise qui son dans le privé boo xoolee y a un rapport du PNUD de juin 2020 bu doon conseiller l'État du Sénégal ne ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci entreprise privée yi bàyyi leen xel pour ñu mën a fay seen ay salaire mais def face à leur charge yegg na ba ci wax leen ne créer leen benn fonds de garantie boo xam ne dina mën a jàppale entreprise privée yooyu dama la wax ne la bi mbas mi ñëwee Macky Sall dafa wuti ay milliards ngir nu mu téyee ak nu mu fayee boroom fonctionnaires yi ñi nga xam ne dañoo wékku ci moom mais jàppale kër liggéeykaay tam si la bokkoon pardon jàppale kër liggéeykaay privé bi tam si la bokkoon est-ce que vous au niveau de la presse am ngeen ci dara li ma wax boo gisee benn maison de presse boo xam ne am na dara ci mille milliards yooyu nga wax ma man en tout cas aw ma te ñeneen ñi nga xam ne bokk nañu ci ñi ma yaakaar patron de presse la et je suis certain que jotuloo alors donc il faut pas ñuy naxante xam nga euh, li wóor mooy boo nekkee ci sa kër muy lakk sa kër buy lakk doo xool sa doom booy sauver booy sauver ñëpp ngay sauver ndoo alors ce qui se passe ce qui s'est passé ci période Covid bi mooy ne Sénégal dafa am 10 millions de personnes actives ñiy jóg di taaba taaba ñiy liggéey fonctionnaires yi et cetera et cetera 10 millions lañu les salariés 400000 lañu 150000 fonctionnaires à peu près 100 250000 yoo xam ne ñu ngi dans le privé ay salariés du privé lañu donc li ci des lépp ñiy taaba taaba ñi nekk dans l'informel c'est 9 millions 600 léegi yow nga ne restez chez vous. restez chez vous mooy ñan ñi am salaire waaye léegi ñi amul salaire ñi taaba taaba nga tëj université bi ki doon jaay fascicule université di ci yor njabootam moom mu def lan du dem toogi këram. mais Bougane après tey après tey. immigration clandestine am. non non attends boo yi jëlaat géej gi. attends oh, attends ma dama dama seetlu benn affaire Sénégal. Euh, opposants yi dañu bëgg lu yomb maanaam critiquer doxul doxul doxul mais ñiy dund ñàkk dox gi jërul ñu leen di wax ni doxul. yéen bu ngeen ñëwee yow boo ñëwee soo nekkoon place am lan ngay def li ngay def noo koy defee ak alal ji nga koy defee foo koy jëlee il faudrait que nit ñi aussi ñu arrêté bàyyi di critiquer di def di de orienté débat ci ay solution yi. bi nga toogee ba léegi yaa ngi critiqué mais yow à sa place lan nga naroon def loo nga xam te ne mën nga wax sénégalais kat man kat Macky li muy def baaxul ñi ànd ak man gëm nañ ñi baaxul waaye man de suma ñëwoon place am lii laay def. jërëjëf vous avez bien dit ñoom ñiy critiqué. Moi, je ne suis pas contre l'État du Sénégal, encore une fois. Moi, je suis contre la vision de Macky Sall. Je suis contre Macky Sall. Je ne suis pas contre l'État du Sénégal, Dieu. bi bu état soxla lu ma jàppoon ma bàyyi ko lu jëm ci luy defar Sénégal encore une fois dañu wax chaque fois ay plan yu bari yoo xam ne nous on a essayé de développer ça te dinañ ci ñëw au cours de la discussion mais Sénégal xaalis bi koy defar mu ngi biir Sénégal man gëwuma ne xaalis bi defar Sénégal bitim réew la war a jóge dañu am ay mbir yu ndaw yoo xam ne nit ñi duñ ci jànge Cheikh Mountakha université Cheikh Ahmadou Bamba kañ la ko commencé matul ñaar ñaari at université am paate ba ak université Saloum. Baye Niass waaw. Baye kañ lañ teg xeer yi kañ lañ ciy jàng wër na ma ni sa sët du ko fekk. lu ko waral c'est parce que nit ñi gëmuñu ñi ñu jiite. gëmuñu leen dans quel sens gis nga financement participatif bi nga xam ne Touba ca kanam mu ngi koy def mais c'est un modèle boo xam ne ku nekk daf ci war a bàyyi xel. en fait est nekkul classe politique bi lañ gëmul. pas ñuy jiite mais toute la classe politique mais c'est effectivement ça. xam nga lu tax waxkat yi rek ñooy politique wax ma jëfkat buy politique bu bu ma weesoo man wax ma jëfkat buy politique waxkat yi rek ñooy politique et jëfkat yi dem nañu ba wan leen ne terrain bii ngeen nekk du terrain bu baax dem nañu ba gëmloo ne la yow war ngaa jombale sa bopp politique ñu bari loolu lañ ma doon wax Bougane lu tax ngay politique lu tax nga jóg ci politique baaxul lu bon la pourquoi ñu war ko bonal alors que sa ëllëgu doom sama ëllëgu doom politique boobu moom moo koy defar donc li ma gëm xam nga man dama la wax ne la depuis le départ moi je suis un chef d'entreprise man li ma xam mooy liggéey ñàkk a jariñu Serigne Touba bi ko yonent bi feeñoo dafa ne ko fexeel ba sas say ñoñ ñuy nekk ci yittewu kawe donc ci loolu rek lañ nekk liggéey mooy développer Sénégal du beneen yoon et malheureusement ñi fi ne muy la classe politique de 1960 à maintenant c' est pas que c' est vrai critiquer moo gën a yomb saaga moo gën a yomb boo duggee ci kër booy dégg kuy saaga rek gone la moo tax je suis d' accord rek toi critiquer moo gën a yomb mais li nga xam ne moom moo am solo lii defar Sénégal dafa war a jaar ci les petites et moyennes entreprises mais malheureusement ban dañ ñu gëmloowul suñu bopp pourquoi salon de coiffure bi gëmul ne société la yor pourquoi chauffeur taxi bi moom gëmul ne entreprise la yor. mais là tu veux dire que DER dañu échoué donc alors parce que il a créé le, le la délégation pour ah, ah, l'entrepreneuriat. alors pour être pour être précis il aucune politique de jeunesse de 1960 à maintenant aucune politique de jeunesse bu tenir la route boo ko gisee wax ma xam nga man damay gis nga ne ma euh, tey Seneweb c'est une entreprise bu jógee ci financement wu tel euh, projet de jeunes. Euh, gis nga telle grande entreprise mu ngi jógee ci financement wu tel tel tel tel mais malheureusement c'est pas cas chaque fois bu ñu koy def dañuy jël ay nit ñoo xam ne ci wàllu politique lañ leen di tànne man wax naa la nee naa nee naa la du xam-xam bi ak xel bi moo fi manqué encadrement bi la sénégalais yi amut parce que nit da nga koy encadrer boo bëggee mu defal la résultat parce que bu doon ay milliards dong Ablaye Wade moo gënoon tabe ñëpp lam ci def kenn du ko ci def Macky Sall bu ñëwee xëpp na ay milliards fu nekk lépp dóor la mais réew moo xam ne ñëpp dañoo bëgg mos ku nekk bëgg ŋànk ku nekk nekk ci yoonu dóor ñoom ñu ñu jiite ñooy xalif généraux yu dóor yi donc mais mais situation bi ñii rek la mun a nekk euh, euh. alors dama la doon wax sànq ne la euh, Italie lan mooy seen seen seen l'Italie est un pays développé mais quatre-vingt-dix pour cent de l'économie italienne xam nga lu mu reposé les petites et moyennes entreprises waa léegi ñun lu tax mënuñu gëmloo ne mécanicien bi nekk fii nii ci deux voies Sacré-Cœur yi mécanicien boobu bokk na ci li war a développer Sénégal lu tax tey kii dawal pousse-pousse bi gëmloo wuñ ko ne yow war nga bokk ci ñuy développer Sénégal tey lu tax alkaati bi nit ki nekk ci mbedd mi ragal ko parce que jàpp na ne ndawal buur la te buur moo koy fay alors que c'est le contraire yow citoyen bi yaay fay alkaati bi c'est pourquoi dans les autres pays les, les policiers respectent les populations voilà. pourquoi ñun suñu ay policiers respecté wuñu c'est pour juste répondre à sa question donc de manière très claire il faut ñu xam ne il faut ñu encadrer li ëpp ci réew mi baan li ëpp ci réew mi mooy ñan mooy 9 millions 600 mille personnes yi ma la wax ne ñoom ñoo yore suñu économie dama dégg président de la république bi def relance de l'économie Euh, loolu dinañ si ñëw sax si kanam dama bëgg a rek évacuer la question politique. d'accord après le sujet politique après ñu ñëw si relance parce que ñu si dem. dafa am épisode yu weesu sa diggante ak Ousmane Sonko ay kàddu ndax mën nga ñëwaat si loolu ak fi ngeen toll jamono ji nekkuñu ci ci diine daf ma dóor ma fayu booy dóoree nag da ngay xalaat ni ñuy fayoo. mais tudd la. ma ne booy dóoree xalaatal ni ñuy fayoo. wax ju yegg dof moo ko moom li am solo mooy liggéey bi nga xam ne ca laa nekkoon man ku ma xam-xam ne buggaan ci social la nekk yàlla moo ma ko nattoo parce que dama juddoo ci kër goo xam ne bu ñu lekkaan dañ leen daan yekkal ma jàpp ne war naa bokk ci ñi nga xam ne war nañu mën a abréger la souffrance de sénégalais moo tax lu ma am lu ma suñu boroom jox rek natt naa ko bokk ak doomu aadama yi et ci loolu laa nekk et ci logique boobu aussi laa nekk li am solo mooy euh, bañ ba yëf yi jotee ñu war ko def def nañ ko jàppale nañ ñu ñu war a jàppale li am solo nag mooy euh, gentleman agriment il faut mu am. Euh, moi je n'ai aucun problème je n'ai aucun problème avec qui que ce soit dans l'opposition je les respecte tous parce que ñoom ñëpp ñoo ma mag ñii sumay nijaay lañu ñii sumay grand frère lañu ñii sumay nijaay lañu ñii sumay mag lañu. et euh, maintenant nag euh, jàppal ne ci langue bi ñu nekk boo dóoree nit boo ko dóoree kurpeñ xalaatal mun na la mun naa yëg sa kaw. mais ñu ngi dox tànk jàmm seen diggante ñaar. pardon ñu ngi dox tànk jàmm seen diggante ñaar. amul problème sama diggante ak moom. Mansour Faye Ousmane Sonko épisode boobu suivre nga ko enregistrement bu ñu publier lan la lay ko comme commentaire. audio wala audience dafay yokk yow dara ci sa ci sa dund. est-ce que mën nañu wax ci audio wala audience ba mu yokk ci sa dund dara alors tu sais très honnêtement moi je préfère euh, m'intéresser à des sujets yoo xam ne dina jëmale réew mi kanam parce que nag bu ñuy waxante dëgg euh, teesante développement Sénégal sama audio ci boobu ngeen koy dégg man je boobu laa bëgg participer mais vraiment recevoir na ko recevoir ko euh, jàpp ma ne man am na lu muy indil Sénégal jàpp ma ne am na. wala jàpp ma ne même ñoom ñi nekk ci débat boobu dina leen grandir et la preuve je crois que ku nekk ci ñoom dem na ba comprendre ko et jublu dina ci leneen parce que xam na ne loolu ñu nekkoon du luy grandir Sénégal Ahmed ñu dem si relance économique bi. non non balaa ñuy dem ci relance moom même loolu bu ci bëggul wax tam dafa nekk actualité ba pare dafa nekk loo xam ne dafa de parti ministre de la république un magistrat même bu dee dañ ne dafa ñaan disponibilité tamit moom moom magistrat la. Cheikh Issa Sall. waaw léegi nag buñ ko ci tuddee bon loolu tam yow loo ko xeeb xeeb boo toogee nit ñi dinañ la laaj yow en tant que citoyen ñoo xam ni suñuy ëllëg ñoom ñoo ko yor. justement. loolu xew fa. mooy mooy li ma wax sànq rek. Ah. bu ñu àndoon ak jëfkat yi. du ñu nekk ci waxkat. Ousmane Sonko si waxkat yi la bokk. mais je dis encore une fois bu ñu an tànnoon jëfkat yi. du ñu nekk ci waxkat yi Ousmane Sonko amul benn ndombay tànk ñi am ndomba tànk mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yore réew mi. et de manière très claire. mais jëfkat tam mën nañ la compter yow si jëfkat yi parce que yow da kon est ce que nekkul tam si considération yooyu yëpp doo si boole Ousmane Sonko da nga koy boole comme. benn wax mais dama ne. Euh, moi je ne personnalise pas de débat. li am solo mooy man Bougane Gueye yàlla dimbali ne ma ma bokk ci jëfkat yi Cheikh Ibrahima maam Cheikh Ibrahima Fall mu baax ma dafa waxoon ne na nañu yegg ba keroog ñuy way fay wax bàyyi jëf man dama bëgg bokk ci ñuy jëf bu ñuy waxaale wax waxaale waxaale mooy lan dangay wax ngir jënd mbir mais lan mooy tax nga jënd jëf. jëf moi je préfère féete ci jëf. ok ñu ñëw ci wàllum relance économique bi nag président de la république euh, presque quinze mille milliards quatorze mille milliards yu teg nee nañ moom lañ bëgg pour soqaliwaat wàllum koom gi am na ñoo xam ne nag jàpp nañ ne mën na ne ndax waxoon na fi mille milliards mu dikk quinze mille milliards war na mën a dikk yow jàpp nga ne loolu war a mën a nekk la. jox quinze mille milliards nga ji lu jiitu loolu nga jox ko vingt cinq mille milliards su dund changé wul. bu la laajaatee quinze milliards di nga ko quinze mille milliards di nga ko jox. mais Bougane est-ce que nekkul tamit c'est pas une approche un peu nihiliste. waaw parce que gis nañu jamono ji am na yu bëree bëri yoo terminer laissez-moi aller au bout de ma pensée. je dis la laaj vingt mille milliards vingt cinq mille milliards nga jox ko li mu ci def bi mujj mooy li am ci mbënd mi nee naa leen soxlawul xaar rapport. rapport bi gën a wóor mooy rapportu unité 3 mooy rapportu alaaji paate mooy rapportu aynumaan mooy rapportu ñu euh, ngi koy waxeeti euh, sotrat et cetera et cetera parce que ku fa dem xam nga ni fii ñii seen dund changé wul waaye la ñu nekkoon depuis 2012 ci jafe-jafe yooyu rek la ñu nekkaat non mais mais mais mais mais Bougane vingt cinq mille milliards. Mhm. ci nee nga ci juróomi atu Macky Sall yi est-ce que bu yàggee duñ ne yow ci nii liste nga bokk maanaam ñoo xam ne moom duñ gis dara lu baax lu Macky Sall def xanaa doole bi mu fi toogee ba tey ci vingt cinq mille milliards defu ci dara lu baax. man musuma wax ne man musuma am discours boobu. non da nga ne quinze mille milliards bu la ko nit da nga ne quinze mille milliards bu la ko nit. non objectif bi laa wax. waaw d'accord na mais vingt cinq mille milliards ku la ko jox sa dund soppeekul. soppeeku na. non dama ne da yow yaa wax non man xaw ma dama ma ndax yow sa dund soppeeku na wala soppeekul. Euh, dama ne yow da ne ku la jox vingt cinq mille milliards. sa dund soppeekul bu la diggee quinze mille milliards mu mel ni kon vingt cinq mille milliards yu mag amul dara loo xam ne def na ko ci loo xam ne lu concret la je pas dit que deful lu baax. xam nga il faut ñu am état yoo xam ne xam nga. dama lay jox rek benn exemple ci benn wax bu gën a gàtt. la sécurité précède le développement ku ko waxoon. Cheikh Anta est-ce que jàpp nga ne yow en deux mille vingt sécurité am na ci réew mi ni mu war a amee non dafa am ay détails yu ndaw yoo xam ne c'est ça qui fait un pays. jo euh, euh Philippe Célestin Joël naka lañ ko rey agression pour onze mille francs un étudiant bu amoon avenir tey. njabootam seen ëllëg hypothéqué wu parce que tout simplement y sécurité ki faut. dama bëgg nga xam ne il faut ñu am politique pro-pauvre politique pro-pauvre mooy politique boo xam ne day jublu ci génne pauvre yi ci situation bi ñu nekk mais pas di leen mettre ci stade bi nga xam ne foofu la ñu féete et loolu dara du ko def. lu mooy ay investissement jaare ko ci secteur privé malheureusement au Sénégal le secteur privé et dans les valises de l'État tey ban investissement bu mag nga gis État bu Sénégal soxla ko dem ci secteur privé bi ban néew na li ci ëpp da dégg nit ñi naan la waa bitim réew étranger yi la favoriser mais étranger yi la ñu favoriser parce que sénégalais yi gëmloo ñu leen seen bopp te loolu yemul rek a un niveau macro dem na tey bu ñu lay wax pétrole di la wax essence di la wax euh, station yi di la wax autoroute yi et cetera et cetera mais yegg na ba ci bitigu naar yi yegg na ba ci suñu puus-puus yi wax ma sénégalais bu ko yor parce que tout simplement gëmloo wuñu le sénégalais lambda ne ko le développement de ton pays passe par toi et donc dama la bëgg wax ne même bu ñu jëloon vingt cinq mille milliards xëppaat ko ci réew mi te gëmloowuñu Mamadou mii ne ko yow da nga war a nekk patron de presse ñu gardien bi nekk ci buntu immeuble bi ne ko war nga am sa sa structure tu dois être dans une logique d'entreprendre ñu chauffeuru taxi bi ne ko yow danga am entreprise war nga am carte de visite pourquoi suñu chauffeur taxi du ñu am carte de visite pourquoi suñu mécaniciens yi jàpp ne ñoom duñu bokk ci ñuy développer réew mi parce que tout simplement dañu leen gëmloo ne soxlawuñu leen mais xam nga dafa am lu war a jiitu loolu li ma yaakaar parce que élection euh, euh, présidentielle bi paase rek gis naa programme yi en tout cas proposition cinq candidats yi amul kenn ñoom ku ci jël njàng éducation jox ko dayoo ak doole bi mu war a am ci réew te dëkk mënut a développé te njàng amu ci te ñoom ñëpp ñuy laaj réew mi amul kenn ku ku di am un programme cohérent une vision cohérente pour développer l'éducation au Sénégal est-ce que là également c'est pas où là c'est pas à niveau-là problème foofu la. alors certainement peut-être xëy na gisuloo ñun suñu programme. parce que non je parle des cinq ans là des cinq suñu programme bi ñu ko jëlee dañu dem ci ki ñu àndal ne ko programme bi dañu bëgg nga exécuter ko mu wax ñu waaw mu jàppoon ci lu ñu waree lu waroon nekk la war a bokk xam nga parfois dañuy dem sax fu sori. je veux dire tu peux pas être dans un pays où ñu lay tabaxal terre alors que tu as mille six cent classes qui sont des abris provisoires tu peux pas être dans un pays foo xam ne ñu ngi lay defaral stade de cent cinquante huit milliards alors qu'au moment où je vous parle yaa ngi am un déficit d'enseignants estimé à trente quatre mille enseignants la réussite au niveau de l'université tu as fait l'université mais le taux de réussite est extrêmement faible boo xoolee benn promo nga gis mu nekk sept mille huit mille wala douze mille mais y a pas cinq cent personnes yuy yuy réussir et même bu ñu réussir et même bu ñu réussir fan ban issue la ñuy am ban débouché la ngeen a été votre proposition en tout cas pour l'éducation mais la proposition c'est exactement ça c'est de revoir tout ce qui tourne autour de de de de euh, de l'approche pédagogique commencé ko ci sixième ba ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk à l'université et à partir de li nga xam ne moom mooy tout ce qui est collège et autres ñi nga xam ne ñoom ñooy les élèves ñu mën leen a orienter vers tout ce qui tourne autour des matières techniques de la formation professionnelle parce que li ma gëm man mooy dem ba université ñu ne la fan nga toll nga ne maa ngi def géographie troisième année bu ñu la dàqee boo cartouché mënoo dara bind ak liir nga mën yi ak élèves bu semb de yéen a yam amuloo benn qualification professionnelle malheureusement c'est cette situation loolu moom moo fi nekk de Senghor à maintenant yow da nga ko kaas kii kaas ko man ma kaas ko mais qu'est-ce qu'on fait pour sa malheureusement ñi ñu jiite ñoom ñëpp chaque fois ku ci ñëw ci même situation boobu lay jaaral dama lay jox benn exemple ñaata ci ñi ñu jiite ñoo fi taxaw ne essence au Sénégal moo gën a cher essence su Mali te essence su Sénégal essence su Mali biir Sénégal lay jaar xam nga ñaata taux moo am ci taxe carburant 65 pour cent soo jëndee 10 000 francs wu carburant cinq cent yi ay tax la ña fi nekkoon ñii fi jóge ñii fi ne ñëpp bi ñu ñëwee ku ci ne kaas na ko mais dafa waat mu dem parce que pour ñoom amuñu benn intérêt que les choses changent alors donc c'est pourquoi je que ce soit 10 000 milliards 15 000 milliards 30 milliards tant que approche yi changé wuñu ko tant que sénégalais bi ci boppam jafe-jafe mettre ñu ko en avant ce sera toujours un problème et je vais vous dire je vais vous expliquer pourquoi c'est un problème jeunes yi ñoo ëpp ci réew mi est-ce que xam nga ñi amul vingt cinq ans soixante pour cent de la population lañu ñi nga xam ne diggante seen judd ak quatorze ans trente cinq pour cent lañ ci population bi ñu am 65 pour cent 65 ans jëm kaw xam nga ñaata ñaata lañ ci population bi 3 virgule 5 pour cent ñi suñu assemblée nationale foofu lañ bokk. comment tu ku am 3 pour cent la population ñuy jël décision ci lu jëm ci 72 pour cent de la population est-ce que priorité yi benn la est-ce que xalaat yi benn la est-ce que gisin yi benn la. donc tan que cette jeunesse n'est pas capable ñu loo leen ne ñoom dañoo bokk ci li yore réew mi on n'arrivera jamais à quelque chose et les politiciens n'ont pas véritablement intérêt pour loolu li ñu gëm mooy gëm loolu la yow Bane yow Diallo yow Ahmed yéen ñëpp ñun ñëpp ay sàcc lañu ñun ñëpp ay truand lañu ñun ñëpp ay fenkat lañu pour que ñëpp mel ni ñoom. mais est-ce que kon léegi jot dodul vraiment Bougane ñu changer façon de gouverner mais aussi façon de de de de s'opposer parce que réew mi dama jàppale peut-être tool na foo nga xamante ni il faut que nit ñi toog waxtaan pencoo réew mi ànd seet nuñ ko tabaxee li ma gis mooy ku contre Macky sànni xeer ku ànd ak Macky ni lu Macky def baax na mais cette façon de de faire la politique ou de de s'opposer ou de gouverner aussi arrange wul Sénégalais Sénégalais toujours rek ñoom ñooy ñoom ñoo ci ñàkk daal. Ah, ah, ah, alors je vais t'expliquer pourquoi Sénégalais yi gën ci ñàkk. dama taw sama benn xarit ñuy waxtaan benn professeur mu ne ma ci biir waxtaan wi ma jàpp ne ñetti pouvoir ñoo am pouvoir monarchique di pouvoir boo xam ne njiit li. dafay réduire toutes les institutions à sa plus simple expression pour moom am ñu koy taayal ay mbir pour moom dong am beneen boo xam ne pouvoir paternaliste la pouvoir paternaliste mooy ñi nga xam ne benn gang la ñuy nekk ñoom ñuy xeex ci seen biir ngir jege buur bi ngir kenn bañ koo jege donc ñoom seen ay privilège rek moo leen intéressé am beneen boo xam ne dafay nekk pouvoir Euh, patrimonialiste ñoom lu ñuy def boo àndeek nguur boo bokkee ci ñuy tàccu kenn du la wax dara ànd nga ak buur mais jour bu ñu jàppee ne yow bokkuloo ci ñuy tàccu da nga bokk ci les ennemis à abattre ñun nag on a la malchance d'avoir un état boo xam ne ñeenti ñetti mbir yu bon yooyu yëpp daf ko dajaloo moo indi situation yi ngay gis nii yëpp xam nga bu ci nekk bu ma la wax rek gis nga ko ci réew mi koo xam ne dañoo jël ñi ko wër seen bopp dong moo leen intéressé la ñuy mos ak la ñuy ŋànk mooy li ma wax sànq ñii li leen intéressé mooy institution yi dañoo am ay tailleur yoo xam ne ñoom ñoo leen koy daggal li ñu bëgg rek ñu leen kay fekk si am ñeneen ñoo xam ne nag sama classe gi boo àndul ak ñoom bokkaloo ci ñuy tàccu da ngay bokk ci ñi ñuy rendi ñi ñu war a exécuter ci ñooñu ngay bokk. alors loolu réew mu mu nekk mais c'est une catastrophe pourquoi au Sénégal état bu ñëw régime bu ñëw bëgg am ay ay homme d'affaires am pourquoi régime bu ñëw war a am ay homme d'affaires am mooy li ma lay wax sànq ne la le secteur privé est dans les valises de l'État tey UBA bi nga gis Sénégal ku ko dooleel ba mu taxaw Obasanjo mooy dooleel Tommy mu dooleel euh, Dangote créer ay champion yu nekk secteur bu nekk bu ñu demee ba dëgër ci seen réew mu ne leen dem leen wuti yeneen réew yi ñu seet nu ñu def pour mun a dolli suñu doole mais malheureusement ñun fii amul loolu képp ku nekk ci business business boo def jàpp nga ne boo àndul ak njiit mi boo àndul ak réew mi dañuy seet nu ñu def pour daaneel la d'ailleurs loolu moom ma porté woon man préjudice bi ma njëkkee jóg ñu ne Bougane de homme d'affaires la homme d'affaires buy contre nguur moom mosuñu koo gis kon waay waaye su waaye si la mais je crois que au fur et à mesure ñuy avancer l'avenir nous a donné raison donc c'est juste pour dire jafe-jafe yooyu nga am xalaat boobu nga am tant que sénégalais bi ci boppam gëmul ne moom moo war a yore caggal guyug réew gi yow président de la république ak doole joo mën a am dañu lay sant dañu lay liggéeyloo jaamu askan wi nga tant que président bi fi nekk ak bu mu mën a doon gëmul ne jaamu askan wi la ci situation yi ñu nekk rek la. mais mais mais mais am kii euh, Bougane des fois sénégalais seen bopp ñoom ñooy seen propre problème parce que euh, euh, am Senghor dem na Abdou Diouf dem na Abdoulaye dem na Macky day dem mais sénégalais le peuple est toujours la et tey jii da ngay ñëw par exemple nga jël dix mille hectares jox ko Bougane Sénégal yëpp jóg. nga jox ko benn tubaab wala benn a ñëpp noppi. ma mais mais loolu pare finalement mais en fait ñun suñu problème sa ànd parce que boo joxee exemple lu dongate bi bu Obasanjo jàppale d' accord Nigéria yi pare tàccu nañ ci mais Sénégal fii. loo yëkk ti jox ko sénégalais sénégalais jóg contre sénégalais bi boo ko joxee naar wala liba wala tubaab ba gars yi noppi. Ah, tey jii ah, je donne un exemple. Euh, li ñu wax ci par exemple damay gis ay nit ñuy ñuy critiquer des fois Dembaka wala ñuy critiquer l le le kii de Sédima la. Babacar Ngom Babacar Ngom terrain yi ñu ko jox te gisuñu autoroute à péage bi ci foncier la jaar foncier boobu ay tubaab lañ ko jox. c'est c'est c'est plus que les hectares qu'on a donné à ces Sénégalais là mais kenn du wax loolu. alors dinaa la dinaa la sax dolli leneen. xam nga malheureusement ñun sénégalais yi ñoo mel noonu parce que suñuy politique ñoom ñoo ñuy suuxat ci lool Sénégal boo amee alal buñ la yaakaaree baadoola nga nit ku bon nga. doo dimbali nit franc-maçon nga et cetera et cetera te ñi la koy wax mënuñoo suukar kafe boo amul maanaam boo nekkee nit ku loxoom jotul ginnaaw également tooñ nga donc c'est les deux extrémités. mais est-ce que nekkul tam ay cliché kese de que de classer sénégalais si ñaari kankan mais am na sénégalais yoo xam te ne aussi nekkuñ si ñaar boor yëpp te képp ku taxaw. indi discours bu leer. mu ne la jàppale peut être l' exception confirme la règle mon frère. mais man jàpp ma ne loolu mooy exception bi. Ah. est nekkul ne tam dafa am ñu gën a fës rek ñu jël cliché boobu bëgg a mettre au devant aussi ndax nekkul ñu tombé si piège boobu. alors euh, euh, li ma mën a wax mooy expérience bi ma vivre xam nga ko nekk ak li nga li ngay vivre certainement on aura l'occasion d'y revenir euh, tey bu buggaan bu amee information bu nekk ci buggaan tu as l'impression que la presse dañuy jubiler parce que am na info bu nekk ci Bougane tey su ma accepté woon nekk reporter ci rajo Mbadakhoune kenn du bind ci man donc c'est le revers de mes ambitions et sa il faut le comprendre et je dis sama position moo tax loolu pourquoi aujourd'hui ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di def dara doon doomu réew mi mënuñu leen a jàppale et je suis désolé duñu leen jàppale et c'est comme ça que ça se passe ni sénégalais lambda bi di réfléchir noonu la suñu kilifa yi di réfléchir parce que jóge wuñu planète Mars ni Jupiter je vais vous donner un exemple ñaata homme d'affaires nga gis ñu ñëw Sénégal ñu dérouler leen tapis rouge ay homme d'affaires étranger Bolloré bu ñëwee Sénégal duñ ko dérouler tapis rouge Tomy Dangote et cetera et cetera les Marocains bu ñu ñëwee duñ leen dérouler tapis rouge homme d'affaires bu la bu président recevoir suba suba suba presse bi ñooy njëkk bind ne corrompu nga affaire bi ñooy njëkk bind ne la yow da am foo féete pourquoi mais c'est véritablement loolu ñi ko cultiver mooy ñi ñu jiite parce que gëmloo ñu réew mi seen bopp et duñu jàppale ñu nekk ci biir réew mi mooy li ma lay wax sànq ne la pourquoi amuñu ay champions nationaux amuñu ay champions nationaux parce que tout simplement ñi ñu jiite dañuy bañ mut baan nii dëgër am doole bu amee doole mun na nekk problème pour ñoom ëllëg alors ça c'est des choses qu'il faut changer et j'espère que euh, jeunesse bi nga xam ne dugg nañu ci politique bi jeunesse bi nga xam ne bokk nañu ci di jóg ngir changer réew mi loolu dina am benn euh, amélioration boo xam ne dina ko indi surtout ci la manière de voir des ñu ñëw ci Barça bi ak euh, Balzac bi gis nañ ne Boubacar Seye nee na mosu fi jóg mais temps yi dafa mel ni dafa gën a taqarnaas yi responsabilité nag yenn opposants yi da koy faral di buux yenn saa yi ci état mais est-ce que du mhm. responsabilité partagée parce que fii gis nañ fi ay yaay boo yoo xam ne dañuy jaay seeni or mhm. paasal seeni doom six cent mille trois cent mille pour ñu tukki mhm. loolu est-ce que yoonu état tam nekk na ci benn côté ah, ah, Ahmed xam nga euh, dañuy wax juste ci barsa bi wala Barsax muy immigration clandestine bi euh, talaata bi ñu génn dama gis ay image yu graw sen louis ñuy fot ñu vidéo ko yónnee ma ko ay jeunes yoo xam ne dañu nekk ci benn gaal def seize jours ci biir géej gi ñëw wàcc ci tefes gi nit ñi di leen daw di leen dimbali ñu ngi wax recrudescence de l'immigration clandestine mais waxuñu ba tey lan mooy la base lan mooy la cause cause bi waral tey tey tey tey tey mu am recrudescence vous savez la cause c'est quoi entre 2012 et 2018. le taux de chômage. non entre 2012 et 2018 immigration clandestine mu ngi doon am mais ndax bari na ni mu bari nii tey tey la cause c'est la résultante du rester chez vous nga ne ni toggal sa kër bul dem bul dikk. joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan wuti ay milliards jox ko ñi nga xam ne ñooñu lañ duppee ay salariés wax naa la léegi ne on a deux millions de nouveaux pauvres ne la cent quarante six mille personnes ñàkk nañu seen liggéey ci barab yu ñu doon liggéey c'est des chiffres yu génn dans les journaux mais loolu li ko waral mooy ñàkk mesurer conséquence su ay décision te décision boobu le rester chez vous là moom moo nekk la conséquence aujourd'hui de la recrudescence mais bon, de l'immigration est-ce que est-ce daal sa kaw mais et, les États du dañu dañu dañu jël des mesures et puis les les les les les les le corps médical moo doon joxe les instructions état bi di ko appliquer. Mhm. est-ce que yow boo boo nekkoon place su Macky bu Covid bi ñëwee da am soirée yi ubbi <laughs> ab mel ni dara amul. Serigne Mountakha dafa joxe exemple bu extraordinaire. et c'est de quatre-vingt-cinq bu mbas bi ñëwee dañu ko tëjal jàkka yi mu ne tëju waaye li koy xeex dama ciy bokk jël deux cent millions joxe parce que xam na ne nit ki yàlla du weddi boppam yàlla dafa ne li ma bind doomu aadama moo ma ci gënal doomu aadama moomu ñu jox ko mission mission boobu war doon existence am ci kaw suuf nu mu gënee beneen mindaafun ñëw ne ko yow da nga war a bàyyi li ngay def yëpp dellu ci ginnaaw sëñ Mountakha dafa ne déedéet <laughs> pourtant tey def nañu màggal Touba lan mooy conséquence yi mais xam nga gis nga nit il faut savoir prendre de bonnes décision tey même organiser woon màggal Touba après ñu am 1000 cas ce que ça fait parce que tamit une économie c'est quand ça tourne jox naa la cinq exemple ne la ki doon jaay fii nii nii euh, fascicule buntu université nga ne ko tëj nga université bi moom fascicule yi ma doon jaay fu mu koy jaayeeti ku muy jaayeeti fascicule mais mais moom boutique ba mu doon jënd boutique ba mu doon jënd boutique ba dootul jaayeeti parce que amatul pouvoir d'achat bu mu jënde jabaram dootul dem marché commerçant bi dootul encaissé te xam nga économie chaîne la mais l'état n'est pas resté sans rien mais tey dimbali na askan bi si wàllum dund. Euh, ñaata ñaata lañ ñaata lañ ñaata ñaata lañ dimbali. 69 milliards 69 milliards si wàllum dund. ñaata lañ dimbali. 1 million de ménages on est 16 millions 700 million de ménages on million de ménages ñu à ko à 8 millions de sénégalais loolu c'est significatif quand exonération ñaata nit nga gis yow ñaata nit nga gis ñu ñu ñu jàppale leen si wàllum exonération fiscale mooy que vous soyez dans un registre simpliste mooy li nga wax léegi nii jox nañu un million de ménage est-ce que vous avez fait un reportage sur le terrain vous êtes journaliste dem nga ci biir nga dem xool ñu wax la ne ñaata nit la ñu jox koñ boo dugg ñaata nit nga fa dégg ñuy ñaxtu donc il faut pas que ñu ñuy balancer ay chiffres et dinañ ci ñëw ci kanam le problème c'est pas de dire joxe nañu nangam nee naa la sànq jox nañu mille milliards mille milliards yi bañ koy pàcc est-ce que defarkatu pneu bi nekk ci coin bi dañ ko ci boole impacté wul pourtant c'est un pauvre conjoncturel. mais mais koo xam ne situation wu Covid bi moo ko yóbbee situation bi mu nekkee. est-ce que bàyyi nañ ko xel moo tax ma wax la sànq ne la tant que ñi ëpp doole ci euh, population bi maa ngi ko doo wax sànq bi nga ma daggee président dafa dem di def relance ci biir discours am ma dégg ko mu ne plus de quatre-vingt-dix pour cent de notre économie repose sur l'informel lan mooy informel. ñi di taaba taaba. lan mooy informel est-ce que informel du fay tax informel day fay taxe da dul fay ce qu'on appelle les imp euh, euh, impôts directs mais day fay impôt indirect parce que li nga jënd ci boutique bi et cetera et cetera. mais voilà ñooñu dañuy fay. mais ñooñu nga xam ne ñoom ñoo soutenir suñu économie ñoom ñoo yore économie bi mooy li ma la wax sànq mooy plus de 9 millions de sénégalais actifs yooyu mais 9 millions de sénégalais actifs yooyu kenn boolewu leen ci situation bii nga wax mooy tant de milliards yi ñu génnee ne dañ leen di dimbali loolu mooy résultante situation bi nga gis ni tey ki nga xam ne dafa yoroon euh, dafa doon bëri mënatul bëri ki nga xam ne da doon daan dooleem nekk tailleur nekk booy punkal mais nu ko neex mënatu ko def mais bu ko yàlla dimbaliwul bu gisee facilité day dem ci foofu ça ne justifie pas ça je ne dis pas que ça justifie l'immigration ou les, la recrudescence des agressions justifié wu ko waaye mën na ko expliquer et donc li ma wax mooy situation yi ñu dund ci immigration clandestine bi nga xam ne dafa yokku ak lii di agression yi comme le jeune Joël Célestin bi nga xam ne ñàkk na ci bakkanam mais loolu dara waralu ko lu may ñàkk bàyyi xel li nga xam ne ñoo ëpp ci suñu société par rapport à l'économie muy ce secteur informel la alors que secteur informel bi man jàpp naa ne secteur boobu moo war a développer Sénégal c'est le levier pour développer notre pays léegi président ñu ñëw ci wàllum inondation yi euh, plan yu bari jaar na fi boobu mujj bi nii plan décennal bi gis nga ko milliards yi ci wax yow en tant que président gëm sa bopp lan nga xalaat ne buñ ko defoon lii inondation yi lu ñuy nettali lee ne daaneel kër yi tuxal wala lan yow lan. alors euh, damay delluwaat ci li ma waxoon rek. Hmm. Euh, ku la mënul assurer assainissement cité kër góor gi. bu la gëmloo wee ne dana la assainiral Kër masaar boo ko gëmee c'est ton problème mooy li wax sànq rek dañu bëgg ñu ñuy nax politicien du jël alal di ko suul dañuy bëgg li ñuy def ñu koy gis ñaari ñun ñu dëkk Sacré Cœur noonu ñaari euh, autopont yooyu ñu ñu defal ñaata la bu nekk dix milliards et quelque réglé woon problème mu kër góor gi balaa ngay taxawal ay cité balaa ngay taxawal ay immeuble mais il faut penser aux à l' assainissement boo déggee Paris ñuy wax les égouts de Paris oto mën a dugg ci biir daw ca mais parce que ñoon seen maam yooyu seen i maam bàyyi woon nañu xel ne ndox mi dafa dañ ko war a wutal fu muy jaar et tey la réalité mooy boo demee Kër Massar wala nga dem Yëmbal wala nga dem Malika mais au-delà de problème assainissement mais da ngay gis ne nit ñi même ni ñu dëkkee da ngay gis ñoo xam ne dañuy dëkk à euh, euh, T moins moins deux c'est-à-dire comme yenn kër yi à Grand Yoff dañuy dëkkee deux mètres ci biir suuf. day xóot ah voilà donc bu fekkee ne dafa xóot mais waxuma la waxu taw mais nappe phréatique bi. bu ndox mi baree forcément ndox moom il faut mu yéeg mais ñooñu kan moo leen permettre ñu tabax foofu c'est l'état c'est l'état muy ñi fi ne muy ñi fi ne kon muy ñeneen ñi ñeneen ñi ñëw. président bi mu demee Kër Massar nee na loolu na dakk. buñ autorisé ci gars yi ñuy na béy léegi nag qu'est-ce qu'il faut milliards nga xam ne wax nañu ne def nañu ko ca mais <laughs> il faut que sénégalais bu nekk nekk propre contrôle am ñi nga xam ne war nañu jóg ñu jóg taxaw wax ci parce que autant de milliards ñu ne def nañu ko ci mais wax naa leen ne buñ ko ci defee waroon nañu gis changement ci réew mi wala ci situation bi nga xam ne moom la ñooñu waa Kër masaar nekk moom la waa Yëmbal nekk moom la waa maaw nekk mais malheureusement c'est la même situation et situation boobu moo xewoon 2012 boo fàttalikoo 2012 nous on avait pris 500 millions jox ko état jox Croix-Rouge et cetera et cetera. 300 millions en matériel. jox leen ko dimbalee leen ko waaw kon 2020 li ma doon xeex man 2012 2020 bu ñu ci dellu si waatee ba situation boobu am day fekk la ma leen waxoon dellu si na waxoon naa leen ne ndox mi mu sotti woon 2012 bu ko sotti waatee ñu amaat lañu lañu la fi newoon Eh, mais mais mais est-ce que nekkul ne tam yenn yenn yenn ñii politique da ngeen di ragal yenn saa yi jël yenn décision yoo xam ne élection ngi ñëw ñii bu ma leen déplacé ñoom ñëpp dinaa fi ñàkk électorat ba ci ñi yenn ñuy jaay nii sax gars yi dañ leen di ragal di di déguerpir parce que rek y a les élections. xam nga wax naa la léegi nee naa la booy sauver sa njaboot bu lakk amee sa biir kër booy sauver sa njaboot doo xool sa doom boo gën a bëgg wala ku la gën a taq da ngay sauver rek dañu ci am ay situation yoo xam ne ay saafara la yuy jur jàngoro jaxaay kañ lañu ko def Sokabek cité Sokabek te mu nekk tawfeex euh, tawfeex yaakaar kan moo ko defar Macky Sall moo defar tawfeex yaakaar demal tawfeex yaakaar école bi gën a rafet ci Sénégal je di l'école primaire bi gën a rafet ci Sénégal tawfeex yaakaar la nekk am na ñoo xam ne amuñu courant amuñu ndox amuñu dara parce que chinois yi ñëw nañu tabaxal leen fa école te ay nit yu ñu déplacé woon la ci 2012 ci mbënd mi yóbbu leen taw fex yaakaar mais tey c'est des gens qui manquent de tout dem naa Wakhinane 3 Wakhinane 3 ndoxu 2012 moo fa nekk ñu ngi may dégg ndox bu 2012 moo fa nekk. je suis allé dans des zone à Kër Massar ndoxu 2005 moo fa nekk. mais li ci kaw a mooy foofu yëpp Macky moo koy gañe <laughs> loolu mooy expliquer loolu. alors c'est-à-dire que cest gën a méttee. même temps Abdoulaye Wade temps Abdou Diouf fi a méttee. je vous explique toujours pouvoir bi mooy gañe. je vous explique xam nga lu tax. Hmm? nit ki xiif luy liggéenti soxlaam rek la xam gis nga Hitler dafa am benn réunion bu mu organisé woon. da doon wan ay nitam naka la ñuy def pour contrôler réew mu woo leen ci réunion bi mu ne leen indil leen ma ginaar ñu indil ko ginaar mu soqi ko ci sedd bu metti mu bàyyi ko ci diggu kuur bi ginaar gi kof kofi muy réunion gars yi naan ko euh, son altesse ginaar gaa ngi ci biti mu ne bàyyi leen ko bi réyon bi jeexee mu ne indi leen ginaar gi ñu indi ginaar gi teg ko ci kaw taabal bi mu ne jox leen ma pepp ñu jox ko pepp mu sànni ginaar gi daw for pepp bi ñii ñu jiite benn lañ kon am na problème Guédiawaye ah. ah, ah non ah, non oh, oh, oh, ah, wax naa ko ko ci waxtaan nee naa ko bee boon na sa poche diis parce que nag nit euh, ñi ñi ci ëpp jàpp nañu ne leketi kese naxut bëy malheureusement da ngay wax da ngay sensibiliser ba sonn moi je vous ai dit après l'élection présidentielle def naa benn sortie ci la doon wax ne justement yéen sénégalais yi choisir ngeen continuité yéen sénégalais yi choisir ngeen Macky Sall waay waaye waaye nangeen gore rek te bu leen yuuxu. léegi dañuy avancer tuuti parce que waxtu bi mu nii xoj. ñëw si sa contentieux justement euh, transition bi am nañ ko. groupe euh, des média ak Aliou Sall yéen a ngi yéege ko wàcc si wàllum yoon fu mu toll. mais écoutez Aliou Sall il est journaliste comme vous et je suis certain que yow ci sa bopp quand tu as entendu que yóbbu nañu telle maison de presse. justice ndax revue de presse vous avez soti mais xam nga boo nekkee ci réew moo xam ne tu es devenu intouchable te li tax nga intouchable du kenn lu may sa mag magam moo tax mu intouchable parce que moom si boppam xam na ne bi ñuy nekk ci ay rédaction ñu nag moom àdduna ak xelam ak xalaatam mayu ko woon muy jël organe de presse di ko yóbbu justice parce que revue de presse bu ñu def mën naa comprendre nga ne euh, dafa def article ci man daf ma diffamé waaye yéen organe bi da ngeen ma revue de presse est-ce que ça veut dire quoi ça veut dire que demain si bu ñu abdiquer kenn dootu ko tudd ci revue de presse waaw waaw léegi lu Macky Sall moom mi ñu dénk réew mi mënut am moom moom moom moom Aliou mën na ko am c'est pas possible donc il faut que mu xam ne ancien lu nekk day am te bàyyi xel ci ëllëg dafa am solo nous on est de cette profession liggéey nañ ci xam nañ ci lu nekk mais organe de presse bu ñu yóbbu justice ngir revue de presse man maa ngi ko doog a dégg. est-ce que nekkul bataille politique moo nekk. si non mais bu dee bataille politique bataille day seen parce que am na loo xam ne ça frise l'ignorance et je suis certain que grand bi ma xam il est très loin très loin d'être ignorant ku yeewu la. looy mais bu tey mu def lu mu xam la parce que xam na ne mooy li ma la wax sànq c'est un intouchable. xam nga intouchable moo tax mu def li mu def ok groupe de presse d'accord def na def na def na euh, da nga ko yóbbu justice mais fan nga mus a gis ci groupe de presse boo yóbbu justice di yóbbu ki moom groupe de presse bi Seneweb diffamé na ma salaam laay wax ne wuy salaam si boppam laay yóbbu justice <laughs> loolu fu moom justice mooy tranché mais nag xam nga comme réew mu nekk réew mi ñu nekk. yenn saa xam nga la responsabilité du directeur de publication elle est engagée aussi. je suis directeur de publication non. non dama ne yenn saa si cas de figure yow na nekk. oui oui mais je demande si moi. mais vous êtes euh, dafa am rédaction nu muy organiser woo euh, moom mii suñu mag moo ñu gën a xam ne rédaction dafa am nu muy organiser woo mais dama la wax sànq ne la nit kuy def revue de presse mosuñu gis kuy def revue de presse. ñu yóbbu ko justice ndax def nga revue de presse. Ahmed Aïdara moom teg na micro bi di si tontu léegi dañuy avancé ñëwaat si groupe des médias temps yii mm-hmm. wala lu ñu tollool. gis nañ tamit sorti euh, seen correspondant bi nekk Kaolack Fara Diassé defoon si euh, benn bataaxal bu mu yónnee woon yi tamit euh, situation des médias Bougane yow ñu lay gis ngay may xaalis si biti ñuy wax ne que si biir kër liggéeykaayam moom am na si ñoom te ñu ngi dund loo xam te ni sax mburu moom du ko daj si taal. loolu nan lañ koy mën a expliquer. alo c'est ça qui est dommage c'est ce jugement de valeur que tu viens de faire. non damay laaj donc. non je dis c'est un jugement de valeur. Bougane xaalis bi mu am alalam la sama xaalis la man su ma neexee ma dimbali ku ma neex su ma neexee ma may ku ma neex ñiy liggéey la liggéey moo leen di fay xam nga loolu lañuy wax culture culture économique et c'est important ñi ñi xam loolu état du Sénégal ñaata nit la yoreel salaire moonte <laughs> euh, état du Sénégal ku ne xam na ni la mu yor du jeex PCC yi ku ko moom du Yërim Sow du neen ñu moo ëpp xaalis si réew mi ñaata weer fay wuñu man amul kenn ku ma yoreel un franc sama baat poto donc il faut que ñu bàyyi di jaxase ay mooy li ma la wax sànq boo amul dara tooñ nga waaye buñ la yaakaaree nga am as tuut wala nga nekk nit koo xam ne njort nañ ne am nga xaalis wala am nga tuur baaxuloo boo amee alal baaxoo franc-maçon nga nit ku bon nga doo dimbali nit ñi et cetera et cetera te ñi la koy wax maag ñoo ma yem mu yoruñu luy suukar baraat et de la méchanceté ce qui se passe à des médias quand on me dit oui l'affaire des médias c'est quoi l'affaire des médias On est tous des journalistes. Personne ne prend le soin de vérifier une information. Ken. dama ne la kenn presse bi kenn du ci vérifier information wu des médias y compris même yéen Sénégal buñ ne leen till buggaan la rek nga dugg oui buggaan parce que ça fait vendre parce que les gens cherchent à vendre et c'est c'est c'est là le, le gros problème reporter la présentateur la chef de desk la raam tey ba suñu borom def ma nekk ci ñi yor groupe de presse du xam-xam. mais léegi laaj laaj ma la laaj ma laaj. non mais damay ñëw. est-ce que le groupe des médias respecte le droit de ses travailleurs. ah non xam nga xam nga loolu danañ ci ñëw xam nga loolu dafa am ñu koy war a toppatoo mooy ñan inspection du travail mooy ñan. Euh, les institutions sociales ak institution fiscale. tribunal du travail demoon nga fa ak sa ñaar liggéeykat. ñu ma fa dem yéen jàppoon ne que da nga leen dàq si lu tegul yoon. d'accord ñaar ñaar. ñaar rek nga wax ñaar waaw ëpp na ñaar. mais man ñaar yi laa jàpp. mooy dama dama lay wax ne la ëpp na ñaar. ëpp na ñaar boo bëggee ma limal la leen ñi ma fa yóbbu ñëpp dama leen gañ. ak euh, ñaar yi. boo bëggee ma lim Thierno Amadou Sy ak Abdourahmane Abdourahmane Poul fii. saa saa foofu noonu waroon nga leen jox ndàmpaay. Euh, effectivement. c'est quelque chose qui a été fait. Dans ce cas précis, il y a un contrat qui a été validé par l'inspection du travail. Je dis bien, un contrat validé par l'inspection du travail. mu am ben notion buñ ci bind boo xam ne dañu waroon def renouvellement ci seen période d'essai on n'a pas fait le renouvellement ça c'est une erreur c'est quelque chose qu'on assume mais ça veut pas dire que seen ak respecté woon ko c' est pas ça mooy li may wax ne nañuy vérifier ji information bi malheureusement ça ne se fait pas ñeneen ñi ci des ñëpp koo ci lim mat na juróom wala juróom-benn ñëpp dañ dem justice ma gañe leen ñu def ma ay ndàmpaay ma baal leen ko parce que wutuma xaalis ci ñoom taxawuma it ci benn presse fëgg sama dënn pour loolu parce que du loolu laa doon wut mais ay principe la boo signé contrat de travail da nga koy respecté pour revenir ci situation bii ngay wax dañu nekk ci période mbas nit ñi di góor góorlu pour nu ñu mën a fay yéen seen ay salaire laajal sa patron nu mu def ba fay la diggante mars ak juillet bu xaalis bu mu denc état jàppalewu la yow patron de presse bi yaw patron d'entreprise bi état jàppalewu la parce que jëlul xaalis jox la nga góor góorgóorlu. mais baal na la l'impôt eh, non man bokkuma ci ñu ñu baal impôt parce que man yoreelu ma impôt dara sama baat poto. boo bëggee it ma wan la këyit yi wane ne yoreelu ma impôt dara. non mais principe bi laa wax. non ma ne principe day fekk man bokkuma ca dama la man bokkuma ca man nañ ma ca këccëg Sen TV dafa am quitus fiscal téyel Zik FM dafa am quitus fiscal téyel des médias dafa am quitus fiscal quitus mooy yoreeloo dërëm impôt yoreeloo dërëm caisse de sécurité sociale yoreeloo dërëm IPRES waa keneen ku ko am na ko brandir waaw la société est en règle du point de vue de l'assiette et du recouvrement des impôts sur le revenu de la contribution des patentes de la taxe sur la valeur ajoutée et de tous les autres impôts directs et indirects. ma nga xam nga euh, tungu du teew ñuy nataal dama la bëgg a wax ne man mel naa noo xam ne te lii du ren rek lii du ren rek depuis ma gimmi nekk ci business je fais tout pour être en règle avec l'administration fiscale et l'administration euh, euh, sociale parce que man noonu laa mel. léegi si entreprise de presse des médias des mhm. médias. c'est une entreprise portée par ses propres journalistes bi coow li jibee je suis très content parce que dama gis vidéo boo xam ne ay journalistes des média ñoo ko def ay journalistes des médias ñoo def seeni vidéo di wax seen situation ci biir kër gi ne gisuñu lenn lu ñu lu leen keneen ëppalee. bi état wootee ne yéen ñi ci privé bi yokk leen huit pour cent man yamuma ci huit pour cent dix laa def parce que man xam naa ñoom li ñuy daj te damay nekk ak ñoom ci mbas mi mais kenn ku nekk xam na ne liggéey ñàkk na y a combien de sociétés yu ñuy tëj ci Covid bi y comme combien de nit ñu ñàkk seen emploi ci Covid bi ñii nii kii ban heure lay ñëw liggéey si. cinq heures du matin yenn saa yi ñu woowaat ko vingt mu dellu siwaat ñëw liggéey moom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñuy liggéey di fayu keneen toog ci këram ne moom liggéeyul te bu weer deewee mu bëgg ñu fay ko waaye yéen tamit xanaa man sama yaay takko léegi ñu wax si mbirum jooni jooni parce que waxtu bi xoj nañu bii leer na waaw waxtu benn xoj ñu wax si léegi si mbirum jooni jooni jooni jooni fan la toll dafa ndërmeeru alors wala boog ndax alors xam nga xam nga sànq ci biir waxtaan bi maa ngi wax naan la euh, suñuy état suñu suñu pouvoir yi nekk en place dañuy bëgg di di di nërmeel di rey ay entreprise xam nga bi ñu génnee ci élection en fait bi ñuy dem ci élection yi ñoom ñi ñu jiite dañu yaakaaroon ne dooley Bougane ci jooni jooni la nekk jooni jooni tëj nañ ko ça fait deux ans maa ngi dund lu mu mënoon tey la ko suñu borom gën a yokk am na kilifa gu ma dajeel mu ne ma yaakaaroon nañ ne heure bi yaa ngi kaso ma ne ko da ngeen tëj bunt waaye da ngeen fàtte parenteeru yàlla parce que jooni jooni banque bi ñu liggéeyal moo saboté et nous on sait fait à dessein lu luñ leen sant la parce que jooni jooni ñun ñoo jël dossier bi yóbbu ko justice ñun lañu yoreel xaalis ñii lañ ñu jël dossier bi yóbbu ko justice parce que jàpp nañu ne kii nga xam ne moom mooy euh, banque bi dafa def lu ñuy wax foo def jalgati defuk càcc ñu jël mbir mi yóbbu ko justice ba sànq ba tey yënguwul et man ma gëm ne li ñuy def ñoom lu ñu xam la parce que lu ñu leen def loola parce que les choses sont très claires après dégg nga ba sax ay nit ñu ñëw génnoon dans la presse il y a un an maintenant parce que génnoon nañu dans la presse di wax ne oui les victimes de Johnny Johnny j'ai dit nous on est la les les premières victimes ñun ñoo parce que ñun suñu xaalis ñoom banque bi dañu tëdd ci suñu xaalis mu ëpp presque 3 milliards jëm jàpp 4 milliards parce que jàppoon nañ ne bu ñu tëjee Johnny Johnny Bougane dina yor pot di yalwaan am ay nit yu ñu manipuler yuy jóg taxaw naan wéy dañuy yoreel xaalis joni joni je di encore une fois lii mooy contrat sous agent contrat sous agent bi nga yor diggante banque bi la ak point de service bi xaalisu point de service bi banque bi ci boppam moo ko yore dugal ko ci lu ñuy wax un compte séquestre boo xam ne moom banque bi moo ko yor waaye léegi lu yoonu jooni jooni ci xaalis boobu yàq der wax lu bon am na ñoo xam ne sax dañ ne wuy wuy Bougane am na xaalis mën na noo ñëw fay waay waay Bougane waay mais c'est quand même une parce que Bougane war nañu fay au nom de quoi alors que c'est une entité une société nga xam ne moom ngeen bind yow jooni jooni yoreelu la xaalis mais c'est la banque qui vous doit de la l'argent parce que ñun ci suñu bopp on a saisi la BCEAO ñun ñoo saisir BCEAO ñun ñoo saisir euh, justice pour ne leen ñu tranché ci situation bi nii parce que ñun gëm nañu ne yoon dong moo mujj yoon moo njëkk te mooy mujj. d'accord mais euh, terme bi xam naa mun mënuñ ñëw bu dem te duñ ci wax mooy waa Wakaam yi euh, ñu ne sa groupe mi ngi wootee Téléthon. Mm-hmm. Barthélemy Diaz moo fa ñëw lancé fa appel ba. te waa gouvernement bi ñoom nee nañu président de Guinée huit cent millions. Mm-hmm. bon léegi njariñu Téléthon bi lan la. alors euh, terme sud euh, xam nga yoon ak armée dafa sensible li wóor mooy épuisé nañu recours yëpp ci justice justice jox na raison x mais am na loo xam ne moral moo ko nangu am na loo xam ne moral nanguwul moral nanguwul nga jël juróom-ñaar fukki famille ak juróom-ñeent toroxal leen rawatina nag mu nekk ñoo xam ne ñu góor góorlu lañu ñoo xam ne dañoo jariñ Sénégal dañoo xeex ngir état bu Sénégal xeex pour suñu nation ñun ñëpp donc li jaadu woon mooy au-delà ci caractère judiciaire bi ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ñu trouver benn solution boo xam ne day bàyyi xel sur le plan social dimbali leen. taxawu leen parce que nag nit fu mu nekk def fa fanweeri at ak lu topp boo ko fa jëlee yóbbu ko ci beneen situation boo nekkee ci palaasam yow di nga xam ne du yomb li ci Barthélemy Dias def nag dañ koy sant rek parce que nit ku nekk ci lu ne kët lu ne jonn la soxla bi muy nu demandé ngir ñun nit ñu bokk ci ñiy taxaw jàpp ci euh, œuvre sociale boobu Bougane ku ko xam-xam ne ci social lay dox kon moo tax ñu nit ñu góor góorlu ca ànd ca ak moom liggéeyandoo ca ak moom ngir euh, ñooñu ñu mun leen a dimbali dimbal gi aussi comme li nga wax président joxe na euh, nangam ci ay euh, million pour ñu jàppale leen mais loolu dégg nga liñ ci wax dañ ne la ci programme mu cent mille logements cent mille boobu xam nga fondation ba lifina guñu ko asset foncière bi déterminé guñu ko waaye loolu ay njaboot lañu yu nekk ci centre social bi di ci dund donc li ci Barthélemy jublu mooy ñu seet nu ñu def kenn ku nekk loo mën nga boole ko ngir ñoom ñu mën a am fu ñu dem mën faa sutur je crois que loolu donc moom mooy objectif bi et euh, bu ñu ñëwee ci des médias it yaakaar naa ne ñëw nañu ci bunt bi ñu war a fëgg. président nag laaj bu mujj bi rek mooy euh, l' affaire Dembourou Sow Aliou député APR. Euh, ak euh, li mu wax ci wàllum troisième mandat bi nañ leen ko défendre ak machette yi mu ci tudd daal wàllum jaas yi mbir mi nag jur na coow ci dëkk bi. alors xam nga sànq dama la wax wax jur am solo yoo xam ne peut-être woo ci xel ma ne la dañu nekk ci une république des privilégiés ay nit yoo xam ne dañu leen dooleel. bu ñu nekkoon ci une république normale loolu wax jooju ku ko wax li ñu naan say tànk du laal suuf say tànk warta laal suuf maintenant lii suñ ko bàyyee mu jàll ëllëg di nga gis Bougane dina wax wax ju pire lool te kenn xamul fan la mën a mujj gis nga dañu nekk ci réew moo xam ne dafa am ay fondamentaux yu yu am solo ci stabilité sociale ci paix sociale dañ ko war a gën a cultiver et loolu j'interpelle euh, le chef de l'État pour que mu siffler la fin de la récréation. Parce que cette déclaration, elle est extrêmement dangereuse. bu ñenn ñi jëlee seen jaas yi ñeneen ñi jël seen i ngurdu ñeneen ñi jël seen yat yàpp. moom carte électeur nee na la si jublu de. non non dañ ko layal la mu wax dañ ko layal ka ko layal dégg nga ko. non lobs la ko waxee. carte électeur ne dama ne dañ ko layal xam nga loolu lay la. mais ab jaasi moom mën da nekk carte électeur carte électeur carte électeur la pour nga wax ko de manière très claire nga xam ne kenn du ci nekk di am lenn lu muy lam-laamee carte électeur ngay wax waaye jël leen seen jaasi jóg taxaw ngir defendre troisième mandat c'est quand même extraordinaire euh, man man damaa wax sax ne troisième mandat ma ki du ma ci wax xam nga lu tax parce que Macky Sall ëppul ñii ñi ful la tout cas man ëpp ma la moom mi ndeyu mbili gi nee na du ci wax man tamit du ci wax ba keroog mu wax fi leneen ci lu dul lu ñuy xaar je crois que ñun it ñun it nañ am la bu ñu nangu ñu ñuy ñu ñuy euh, dugal ci ay situation yoo xam ne à la limite euh, amalul réew mi benn njariñ euh, discussion yu stérile rek la ñuy indil. président Bougane am nañu leen mbégte lool seq yow waxtaan bi c'est un plaisir la nga tàggatoo. mais mais sant bu baax di rafetlu jotaay bi j'espère que li ñu fi wax ñi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu am nañu ci njariñ dama bëgg rek ñu comprendre ne. man Bougane Gueye luy defar Sénégal rek ci laa nekk luy tax réew mi suqaliku ak mu jóg rek ci laa nekk musuma liggéey ak nguur musuma ànd ak nguur musuma féeteeg nguur li ma intéressé mooy naka lañ mun a def pour Sénégal jëm kanam et loolu dafa war a nekk combat permanent boo xam ne sénégalais bu nekk war na jóg def ci kem kattanam ngir Sénégal bokk ci liy jëm ci kanam di euh, euh, profito Euh, ci àllarba tey ji nga xam ne suma anniversaire la je viens d'avoir 44 ans may sant bu baax ñëpp ñi nga xam ne euh, yónnee nañu ma ci ay message di ñaan suñu borom euh, mu gën ñu dooleel ba lii nga xam ne moom la ñu sumb li ñu am yéene ci Sénégal muy defar Sénégal suñu borom jàppale ñu ci bu dee ja liggéey réew mi rek nag moo ñu tax a jóg yàlla ñu ko suñu borom jox bu dee ne leneen doon na ci safaan yàlla nañu ko suñu borom xañ ba duñ ci jot en tout cas joyeux anniversaire kon. jërëjëf dafa tombé woon ak tamit ñuy souhaité euh, joyeux anniversaire tey ku bokk si kër gi yéen ñaar yéen a bokk bés. excellent ñu koy souhaité joyeux anniversaire. sama grand Ahmed Aïdara maa ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm si déplacement bi. Moutbane maa lay sant nekk directeur de publication bu euh, Dakar Times ñu lay sant bu baax di la gërëm sant leen bu baax a baax di leen gërëm yéen mbokk internet yu ñu doon teewlu si euh, Seneweb ak Zik FM yi tamit ndaxte foofu tamit ñu ngi teewlu jamono ji dig leen tajee si lu yàggatul dara incha allah ak beneen gan si yeneen anam si Seneweb jaa ngeen